salaamaaleykum am internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di rafetlu ni ngeen ni toppee di ñaanal tey nag ñu ngi fii ci tëggeet jokkul kaw seet nag sunu yaay sunu xarit di wéjur Assane Diop ñu gën koo xam ci Papa Yade numéro 2 mu génn àdduna nag te ñu seet sunu yaay mm, parce que waxtaan moom tuuti. yaay ginnaaw bi la nuyoo di la masaw eh, di la jàlle nu bokk bëggoon laa bàyyi mu nuyu internet Dakar Buzz. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nee ne di leen bisimilah rahmaani rahim Assane day mu ngi noonu yàlla moo ñu joxoon moo jël yàlla bu soxlaa jaam day ñàkk si mm, suñu sañoon fi mu toll si làmba fi carrière am toll bu ñu gën ko si gunge mu taxaw tey fii Balla Gaye taxaw loolu laa ko doon ñaanal ak ñoom Modou Lo mais yàlla. jaam mooy nësër yàlla mooy daggee lu nekk fu ko neex asan yàlla dana mun ne 2020 bii si tineelu tëngéej bi fii la ba kanam di yem noonu la ko suñu borom bëggee woon ñu sant yàlla bu baax di ko ñaanal àllaaxira gënal ko àdduna yàlla na ko malaakay àjjana teeru yàlla na yàlla wàcc yërmande si suñu borom si moom maa ngi koy ñaanal yàlla xale bu baax la bu tenir ndayam bu bëgg ndayam asan bu yoree fukki dërëm sax bëgg ko da koy fëgg si poosam jox ma na ma yaay si kër gi bien bi muy mujjee di di dem noonu dafa dajji ay yére yu bees tax la sol sol laa lay bees sañ sa jënd kab bu bees di ka man fa waax man bégal ma bu ma bég ndekete su demee du dellu sa waat asan xale bu baax ah gis li mu nekkee woon sa doom tam dafa nekkoon sa xarit ndax gis na ne saa bu masaan am combat bu ko masaan a fay comme par exemple fukki dërëm di nga jël lu ma téeméer def ci. wallaahi maa ko daan jàppale maa yaayam Assane saa yu ma see am combat togg naa ñeenti ci nu ceeb to ci nu laa wàccal ko kaamil defal ko ay ñaan léppam si sama loxo la ne woon ndax mu ñun ay lébu lañ bokk si fukki pencee ak ñaar mais comme ni xale yi wër di ñaan si làmba ñu di leen jox si enveloppe yi ay ñaar téeméer ak ñetti téeméer man comme maa asan wallaahi loolu azim moo ma jiitu de te xaw ma caaxaan man maa daan defaral lépp jàppale ko si buntu làmbaam ba mu yegg si fii suma ma sañoon mu yeggali ko ba ma si teral dama yóbbu màkk waaye yàlla suñu borom tabaaraka taala fii la yemaale woon Assane fii la destin mu yem ko doon yem ñu gëm si yàlla di ko ñaanal yàlla mu xeeb àjjina xale bu baax la woon Tabaski desee fukki fan rek Tabaski desee deux semaines waaw jox na ma cinquante mille dama yaay jox ma ne ko pour Tabaski de dama nga jënd ceeb ak diwlin Assane lu mu am dama koy jënd ceeb ak diwlin amul woon li mu am bariwul mais nit ñi bëggoon nañ ko yàlla daf ko coppati sànni ko si xoli waa addina bi asan bu génnee bi ñëw ñu ngi koy may yére yu bees di ko may dàll di ko may xaalis luñ ko may bu duggee day ree réewam gaa gàtta googu dali gees dama yaay am lu may jëkk wax yaay dama jënd ceeb ak duwliñ bu ceeb amee duwliñ si kër gi rek lépp day yomba su ko defee ma dem jënd ceeb ak duwliñ teg si kër gi bu nu xëyee lu mu am mu def bu xëyee bu laa dem fen dina dem géej même bu mbaaliwul dina dem géej utal ma ndawal indil ma la nit ku bëggoon lu baax na bala muy génn àddina am na benn xaritam bu teer maare ñu koy wax Baye Sàlla mu dem yaraa bu mu demee def ko may jën yu mag ay yàttante mu indi ko galaasal ma ko si kees gi dama dee def par ndànk mu bañ jeex lu mu yor si mbeddam bu ñëwee buy dix buy vingt mille mu siy jëkk xalaat mooy yaay jëndal ceeb ak duuluñ su amee si kër gi rek li si des day yomba Ablaye Diop ndey biram ma koy ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko gënal fii doom la joo xamante ne ji duma ko fàtte wallaahi wal kitaabi ñaar lañu woon ñaar yu góor ñaar yu jigéen la ma sama borom jox yàlla def asan ki fi nekk nag yàlla na mut fukk yàlla na nit fukki nit Aly Ndiaye Aly na mat fukki nit ndax defal na ma lépp defal na rakkaam lépp taxaw na rakkaam ba rakkaam yàlla génn ko àdduna mu defar ka lii nga xamante ne moom la ñuy defar jullit ba fi ma toll nii saa yu jullee fajar dina dem si bàmmeelu asan jàngal ko sóoratul yaasin si boppam tànk yi mu defar ko tabaaraka ñu ndax ñun ay doomu daara lañ surtout daara la asan di ko ñaanal yàlla liñ koy ñaanal yàlla na koy fekk sa fa mu nekk. soog bi bi mu dikk soog bi ñu dikk tuuti soog bi nan nga ko yëgee dem gi. soog bi daal damaa jógee jàkka ja ñu jógee dama am habitude damay doxantu ji ba ba bu may jug mbaal na xeer yu nekk foofu si béréb bu Cheikh Oumar Foutiyou Tall jaar bu nekkee xale dañ ko daan dem ma na natt ak a ko lool foofu laay dem toog. wirda bu ma wirdee ba tëj sama wirda ma dox di ñëw si la ma magam koo téléphone Aline ma yaay mu ko nga dafa def soog ñu woo mais may dugg CTO laa fekk ñuy génn di dem ndax dañ jëm CTO fekk fa ay stagiaires docteur yu wàcc ñu yóbbu ko principal man loolu laa si am man nag ah ah garaawul dugg gu ma de maa ngi si biti ñu duggee daal la ma wax na ma. ñu ngi koy faj nii ñenn bi koy faj mu dool di ñëw xam naa affaire dafa xaw a mu xaw leen mu xaw a xaw leen sonal tuuti ñu woo mag ji mag ji dugg ñu jox ko ay gants mu taxaw ñu na bi ñu koy defar scanner ñu ko ba bari faj gaañ bi woon si si si jébi moom moo ko sonal gaañu bopp boobu Assane amul fracture dara amul si moom jébi moo moo moom la moom la dóor si tracteur bi te li mu sañee si deret dafa bari te dafa yàgg fu mu tëdd mu def ko hémorragie ku ne nag wax na dootul dox mu ngi si puus puus waaye yàlla suñu boroom noonu la ko dogalee gaañu bopp la ñu seetlu diggante mu defee choc ak sapeur bi xawut a sori est-ce que euh, euh, négligence amul côté sapeur ak foofu. waaw mën nañ ko tuddee négligence mën nañ ko tuddee lu yàlla tudd ndax yàlla bu bëggee jaam day ñàkk te ku si nekk as sa ndox laay yéex nañ ñëw moom sapeur yéex na ñëw ndax jëkkëru rakkaam dem na ak ah otaam ñetti yoon kan sapeur. oo leen troisième fois bi la ñuy dóor ñëw yegg see dañ fekk mu perdal deret bu bari man sama caatu yaay bi mu ñëwee xool fi Assane tëddoon dafay ñëw xar yuuxu na Assane duutul dund li ma ko gis mu génn ko si deret wante lépp yàlla la yàlla bu bëggee jaam dafay ñàkk. Hmm. léegi ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon géewu làmb taxawaay bi ginnaaw bi Assane tëddee laata muy génn àdduna est-ce taxawaay bi nga ci waroon a yëg dëgg ak am na ci. Ah, su ma la waxalee dëgg moom te yàlla rek tax. ama neex daal nekk na hôpital seeti Assane woote fi ñu pré yekk añ mu dal ne damaa demoon hôpital magu Assane bi sa la ko wax mu damaa demoon hôpital mu ne damaa demoon hôpital waaye duggaguma àlli ne ko foofu néewul duggale mu ne ko maa ngi ñaan jour bi nee na dugg si kanam après ñu ne waaw ñu toog tuuti mu laaj ñu lan ngeen togg añ magam bu góor bi ne ko ceebu jën bu xonq mu ne may leen ma añ ñu may ko añ mu ñëw añ naan ndoxam dem sama doom ju baax la nag bu Assane daan bëri dina ko génne ànd ak moom dem mais Assane benn mbër mu ko féete kaw mosoo yëkki dërëmam def ko si bi mu deewee it man gisuma ko fi indi dara nax nag nit booy ànd moom di ngeen di àndante si ngor ndax jaamu yàlla du jublu penku rek di julli danga koy boole yërëm jaam yi di seetlu nit koo tenee nga xool ko si bët soo ko tenee nga dimbali ko à part moom Youssou Ndour ñëw na fi ñaari yoon Papa Ndiaye ji bi ñu koy wax Youssou Ndour ak Calaw Diop xale bu baax la mooy Youssou Ndour maa ngi leen di ñaanal te Calaw moom dafa bàyyi sa bëri waaye su suba teel gu ne buy dem géej fii lay jaar yaay Assane fu mu toll ndax mu ngi tene mais à moom amul mbër muy yeewoo si écurie Lébu gi nga dugg fii si juróom-ñeenti fan yi mu tëdd nga nam yaay ndax Assane mu ngi tene amul. li tax ñu gis loolu bi Assane génn àdduna jooy yi daa bëri yuuxu yi bëri mbër yi kenn ku ne di xaacoo te est-ce que Assane soog bi amee tëdd na ay fan est-ce que gënoon tawoon a rafet ñoom laataa ñuy jooy ko yuux ñëwoon xool ci lan nga nekk bi Assane tëdd waaw rafetoon na mais xëy na tamit soog bi moo leen jàpp ndax nit mënu ko jugé loo xama nit da wax loo xam ndax boo jullee boo ñaanee yàlla mën a nangu boo dul wax loo xama soo jullee boo ñaanee yàlla nangu man damay wax lu ma xam man daa xam naa ne wallaahi wal kitaabi bépp mbër buy takk fii ngemba fii laa daan yéeg sama kaw tabax gis leen ñuy roofoo si géej di entraînement ñooñu ma la limal fii ñoo fi dugg na ma ndax Assane mu ngi fiix à part ñoom kenn kenn kenn gisuma kenn bu mu àddina am na ñoo xam ne ñu ngi woon fële jooy ndax ku jooy sa bopp nga jooyal boo amee xel ne borom xel nga gis koo daan àndal di toogandof moom di lekkandof moom di naanandof moom mu tëdd di nga si xool sa bopp xam ne di nga tëdd na dafa metti waaw ñun ñëpp yéene nañ ko jàmm jooy nañ ñu ngi si réseaux sociaux yi média yi di wax mais da kenn seetu fii de kenn seetu fi Assane de Assane moom kenn seet sew ko ñett ñii mala la wax amal neex benn yoon boobu la fi ñëw damay julli di ñaanal sama njaboot duma ma bëgg nit ba ma wax loo xam ne lii su ma jullee ñaan yàlla du nangu ama neex boo bëggee dégg dëgg magu Assane la ku baax la Assane dafa bëggal amal neex boppam si koor gi nii rek dafa liggéey matériel gam bi di ko jëli Assane moo jëli matériel bi moom moom indi ko mais ba Assane tëddee hôpital am na lu mat cinq jour mu dem hopital xaw ma quatre jour ba mu fa jógee la oote téléphone si kër gi na magam maa ngi hôpital mu ne ko yow doo dugg soo ma fa fekkoon sax man ñooñu miinante ne ñoom ma ñaanal mu ne ko maa ngi waxaa ma zone bi dinaa dugg waaye daal bis boobu mu oññu ko ñu may ko añ mu añ fii si laa gis ba bii Assane yàlla defee mu wàcce lay sóor bu ko gi si guddi am na si lu ko naqari jooy na def na xataraayu na dugg na sa géej bi ñu dencee Assane ñu génn ko mais nit bu àndee moom ngeen di ay góor ay jullit su méttee na la gis bu neexee na la gis wallaahi wal kitaabi écrit lébu gi nun ñëpp noo dëkk noo bokk ñetti pénc yi xam bonuñu nag du dara xëy na seen xel moo fattu wala soog bi demee leen noonu waaw bi mu génnee àdduna bi muy bi mu tëddee daal benn mbër dugg fii ba dul ñett ñi ma la wax Youssou la Papa ay jibi muy Youssou Ndour ama neex Papa Ndiaye ñëw na fi ñaari yoon caloo moom saayu yu xëyee jaar fi te caloo bëreetul à part ñett ñooñu kenn duggul fii na ma yaay ndax Assane mu ngi tene man côté géej laa dëkk ñoom saa yu ñuy dem géej di dem di waxtaane fii lañ may romb mais kenn mosuma laaj sax ndax Assane mu ngi tene choc bi dafa métti woon ba ñenn ñu bari sax ci goor Tëngéej naan Assane du jógateeg euh, tànk yi yàqu na dara leeru leen ci détail yooyu. yooyu yëpp amu si wallaahi wa taala dara amu si Assane bi woon si jëbi moo ko sonal moo ko def hémorragie ndiggaam damm tànkaam damm dara dammul si moom. ñun ñaan ñun ay jullit lañ bu ñu gisatee ku mel noonu nañ jàpp julli ñaar ràkk bu ñaanal ka ndax Assane ñàkk a fayda ñu tëralu ko hôpital ñàkk a fayda rey ko ñun ñu fi toog am fayda bàyyi ñu fi yàlla sunu borom tabaaraka wa taala muy jël nit muy jël jaamam di ko nattu bu la bëggee di la def lu la neex bu la soxlaay day ñëw jël la yàlla moo fi nekk dara nekku fi yàlla rek moo fi nekk moom borom baax la ku si masa am combat day mel ni moom moo am combat wallaahi day dem ndakaar di xeex ak yeneen bëri di tëllëxante suuf dama koy gis yàlla na yàlla fay xolom am na xol bu rafet nuy ñaan bépp jullit bu ne si kaw suuf lii Assane am nii ndawul yàlla na la ko sunu borom di te xol bu rafet moo ko ko jox na ñëpp raxas seen xol si yàlla la ñu jóge si yàlla la ñuy dellu ah lu te booy dem dara du la topp nu rafetal jëme si sunuy dëkkandoo rafetal jëme si yàlla ndax mu mën nu yërëm ndax Assane yërëmoon na ñëpp yàlla na ko yàlla yërëm. muy lu am lu jëm ci digganteem ak Matar Ndiaye di ménagère am ñu gis ni keroog euh, gisuñu ko ci dëj bi lu waral ñàkk teew. Matar ñëwul si dëj bi ñëwul si bi Assane tëddee. dama la wax na la ba muy béré xeeru ngor la Assane yàlla may ko si bëtam nee na ma lu ma béré béré béré damay sànni sama bët si nit ma gis ko muy wax a xeeru ngor si laa damay jël sama licence dem na di jëli licence ba mu ne ko licence ba dafa réer loolu la ko waxoon waaw man naka nga bàyyi ko ba jogee nga defar ba neen waaw ñu noonu Matar gisuñu ko dégguñu ko moom xaalisu Fallou Ndiaye ñun jox nañ ko Fallou Ndiaye maa ko jox maam ñaaw lambi tëngéej yëpp mu ngi si loxo maam ñaaw xale yi ku fii bëri moom promoteur kii la promoteur mais amul licence mais day liggéeyante ñoom waaw mooy def demer say maam ñaa combat yi Assane am yëpp moo def demer say ma di ko nuyu di a ñaanal ndaxte tam bi muy ànd ak Assane gis Assane bëgg ko si mbapat rek booba xamul sax dañ bokk nag te ñoo bokk menn maam sa njuróobeenu daangu mu topp kay nekk xale bu baax bu rafet xol bëgg Assane keroog bi ñuy wax si waxu euh, euh, xaalis bii dane du wax tànk Assane amul ñeen fukki guddi dal di jooy ndax Assane daa am fu mu toll nee ne mu ne Matar Ndiaye mu ne Fallou Ndiaye du ma wax ak yow boo bëggee da bàyyi ba ñeen fukki guddi yi passé nga jox ma convocation ñu taxawee si buur di nga xam ndax Assane amel na la wala amel na Fallou bi muy jaale si dafa jàppoon ni moom Assane mi ngi ak avance am kon ci jaale gi Fallou Ndiaye jaale si woon ci la lépp leer waaw Fallou maa ngi koy nuyu di ko gërëm nit ku baax la te moom dafa fasante man sa kóllëre na ma Assane sama mbokku taalibe la dan ka xamul ba mu génn àddina mais xale bu baax la mu ne ma yaay mu naa mu ne ma Assane mu ñëwoon sama digganteeg moom baal na ak ma naka Assane amelu la dara ma jóg taxaw naka Assane amelu la dara mu ne ma man mu ne meer Assane na ma dara ma ko joxoon 360 pour mu préparer si man ka barke Cheikh na Ahmed Tidiane Sirif maa wàññi xaalis ba mu mat duñ lekk alalu jàmbur teg ko si loxo maam jibi maar jibi teg si loxo maam ñaaw mën na leen doo leen génn kër gi te lii may lijjanti leerul ndax sama doom dafa tëdd te man dama daan seetaan si média bi su ma jullee saan ba pare yow ngay wax say wax si média bi yëpp Assane dala amee dala amee ba si Matar Ndiaye nee ne na Fallou porte plainte Assane mu jox ko xaalis mën na ko seetaan naa ko si si YouTube bi man man loolu si YouTube bi man maa ngi koy seetaan bu ma jullee tàkkusaan fee laay toog di vérifier léegi nag si tey mën na ko doo génn kër gi. dama dëgg la li jóge si man dafa muy keroog dama wane sama bopp ne ko man doomi Lebu laa te li may wax nii maa ngi si sama bàmmeel leer dama doo génn te diggante Assane leeru ñaanunu la yow mayoonu ndax son doon may doon topp si média bi fu ne nga ne Assane amee dama koy yóbbu yoon bañ loolu amee mun a ma may dem ñëpp téye ma na ma sa doom dafa génn àdduna toogal dañ doon dem dàngu moom moo dem dàngu avant ñu laa dem dàngu dafa oo ma taar jël portable am yóbbu ko main libre dëj bi ñëpp ngi toog jokkul gépp ñu ngi toog si sama kër mu yóbbu portable mi lii bi mu ne ma taar mu ne ah mu ne ko yow xaalisu Assane bi nan la demee rek laa bëgg soxla tey dama si bëgg am lu ma leer na maa ngi si kër yaay Assane toogaa moom mu na ko xaalis bi mu na ah mu ne ko maam ñaa jox na ma ka mais dafa am lu des ma ma naka nii sama baaraam naka laaj ka ñaata la ko maam ñaa jox mu ne ko ña Fallou fii Fallou Ndiaye naka Matar ñaata la maam ñaa mu ne ko maam ñaa daal li mu ma jox man xamatuma ka mhm. daaw bi tabaski desee trois jours laa ko jox xaalisam maa ko waññe jox ko jibi jibi waññe jox ma ma waaw jibi ñu waññe jox maam ñaa moom Fallou Ndiaye mu ne ma yaay toogal da am dëj yëkki enveloppe def vingt cinq mille jox ma dama la ngay continuer ne sama yaay ne sama xarit yow nitu dama la gis ni rek bëgg te yàlla sama yaay ngay doom defal ma numéro ma yëpp mu dem dàngu te mu yeggee daan ñu toog ñu waxtaan mu oowaat ma yóbbu mu yóbbu portable mais libre ma waxaa maam ñaa ba ma waxee maam ñaa ma ne ko ana xaalisu jàmbur mu na ma yaay dama ne du ma wax te Assane amul ñi fi guddi ma na ko yooyu nga yëpp intéressé wu ma maa ngi jël taxi fekk leen foofu man sama doom dafa tëdd magam gàddu léppam dama bëgg a ginnaaw mu leer nañ ku mu amel nu xam ku nu amel ndax man maa joxe xaalis bi ma yaay Assane amel Fallou Ndiaye dërëmu Mali wax naa ko Fallou njaay mu ngi ni toog Fallou taale otaam di génn te ngéej woona ma dama yaay booy baal ma àq fu ma toogoon si média ne Assane ma amel dinaa fa toogaat ne Assane amelu wallaahi. Assane ko kon Matar Ndiaye moo ko amel. fi mu nekk amelul dara Matar Ndiaye amelul dara Fallou Ndiaye Matar Ndiaye moo amel Fallou te Fallou mu ngi lijjanti Matar Ndiaye ñoom ñu ngi si ay problème xaalis bi bi ñu doon xalaat ci diggante Assane ak ak Fallou Ndiaye xaalis bi mi ngi dox ci diggante Matar Ndiaye ak Fallou njaay foofu la xaalis bi tagga témbee kon képp ku mu leer woon sa bopp Papa Yade numéro benn dërëm Fallou Ndiaye xaalis bi ñu ko joxoon mi ngi dox ci diggante Matar Ndiaye ak Fallou Ndiaye ñoom loolu lu ñuy lijjanti la ndax yaayu euh, Assane moo toog nii te loolu indi na ci lu leer nañ léegi nag lu jëm ci wàllu jàppale parce que euh, Assane gis na ni bàyyi na fi doom ju ndaw joo xam ne ku ne xam na ni euh, doom dafa metti ci xol la sax euh, soxnaam ak doomam lan ngay wax tey jii. waaw li may wax tey jii de mooy gor du kiiruwaan gor du ñaan li ma leen waxoon rek ñun xamuñu sax loolu bu ñu xëyee gën a métti bu koy dund dañuy sangu ba set sol suñu mbubb a génne suñu waajur loolu la ñu yare man sama loolu la dundee ba yàlla jëlee ko fi sama papa daf ñu tegoon si loolu hmm, am nañ soxla yu bari yu nu war a faj ndax hôpital 1 million 200 mu nga fa. ak bu des na. des na un million deux cent Assane ni mu nekkee si xolu doomu Adama Ndiaye noonu la Wally Seck nekkee sama xol ñaanuma kenn de dama ka koy wax pour mu dégg ko ne man am naa si moom cofeel Wally lu mu dugg ba koy def damay julli wallaahi wal kitaabi papaam laa daan déglu moom laa bëggoon. ñu demee ba tollu fii Wally génn yàlla xutti sama xol mel ni dafa coppati Wally def kasi moo Balla Gaye dëkk bi dañ naan yaay Wally Seck yaay Balla Gaye Sa Thiès ñëw na fi jaali se wax naa ko ko xale bu baax la mhm. yal na yàlla defal ñu Wally daal sama xarit la bëgg naa ko na xam ne bëgg naa ko ñaanu ma ko nag mais dama ko bëgg sama xol te xam naa ne li occasion la fi rek laa ko mën a kiiwe sama doom nag dama ñàkk loo xam ne li tey bu ne ma woon nga ñàkk addina li si biir te dese ko bu yàlla doon tàggoo man maa koy wax ma dem Assane des si ndax Assane dafa ni si xoli nit ñi dama ko gis si dëjëm am ma yëg si sama yaram waaye daal am naa dëj mitti na mais sama xarit la bëgg naa ko sama doom la dama ko li ma ci softal mooy saydu mi ngi sant yàlla di julli ci bi ndax sunu wayjur la boobu ba léegi Assane génn àdduna waxul waaye il fallait que mu wax sax li nekk ci xolam mën a génn ndax doom dafa sax ci xol sa dagitu res mooy dagg. ku ne xam ne doom ni mel su doom joo xam ne daa da la ëmbaloon nekkoon sa xarit nga xam ne danaan kaf ak yow di foog yow dégg ngeen léegi bi mu mujjee jokkoo moom rek dafa ñëw jox ko fukki junni ne ko lii du préparation tabaski dama la ko jox ngir nga xam ne tabaski gi naa ñëw jox la mel ni kuy tàggoo te doon tàggoo loolu man maa koy lancé muy Wally Seck mariage def ko ci lu baax nga mosuma laa wocc sama bopp saa bu ma la woowee rek ci askan wi la te saa bu ma la woowee nga def ci njëriñ maa ngi lay ñaan ci barke yonent ak bàkki borom Tuubaa nu bokk yaayu Assane mii nga xam ne mooy papa Yade numéro 2 di gor pii di jullit nag di nit ku sell ma bëgg nga taxaw ko papa Yade soxna bàyyi na ci jigéen yoo xam ne mi ngi fi xale la un an deux mois la ñaanul de man maa la ne nga gestu waajur yi nga xam ni boo ko jàppalee defal yàlla te cofeel cofeel la koy fay dégg nga ci yow bi ci des mooy Balla Gaye 2 nit ku baax nga nit ku mën a def lu baax nga. te xam naa ne xanaa loo yëgul waaye loo yëg di nga ci def loo man ak loo manul gesul yaayu Papa Yade numéro 2 bi moo wax te cofeel la gu am ci yow ak l' ensemble territoire boo xam ne yaa ngi ci mbër promoteur amateur ak autorité yi nga xam ne yéen nekk biir tënge surtout ak surtout nag côté bi nga xam ne fala la soog ba amee ci côté tunnel ba maire bi nekk foofu na nga gestu yaayu Assane mi te xam ne yaa ko da leen yaa bokk jaboote tëngeej lépp sa commune la amee Marème Faye Sall def ko lu baax nga gestu suñu wéjur yi ak bonne volonté yi nga xam ne yii da ngi may seetaan di def lu baax te bëggu leen ko ko tudd ñëpp rek damay généraliser kuy liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla te fii Assane tëdd na génn naa àdduna dem na bàyyi na boru hôpital boru million bu nga xam ne ni boo tëddee réanimation neuf jour boo génnee buñ ko évaluer lépp ay millions la te nag jal nañ koor bi bu denc ko de waaye bor bu ñu lay topp te bëgg na doomam ji fa mu tëdd mu tàlli walu leen ma ci doomam ji nga xam ne ku ci feeñ jotoon nëbbu yaay booy lay tàggatoo. waaw xanaa di leen gërëm di leen fomte di leen ñaanal yàlla di wax yàlla na yàlla suturaal leen feebar bi si dëkk bi di mbas yàlla rabbi isati wal jabarut moom mi ko fi dugal yàlla na ko génn Mawlaana tabaraka Sénégal am jàmm ndax bu amee jàmm nu am jàmm. Mhm. ñu gis ne Assane dafa doom fi dama ci kër gi gis gi ay pitax pitax yi diggante bi ak Assane dafa mel ni ko yar. waaw moo leen yar de yàgg nañ fi war nañ ci def plus de sept ans wala huit ans pitax yi par rapport que damaa gis lu doy waar ci image mooy pitax yi bari loolu fan doon jë jullee Assane. waaw mu ngi noonu ndax moom ay xam la moo leen yoroon mais bi nga xamante ne bii des na trois jours rek xam naa pour mu génne àddina su ma leen sottalee moom du ñu lekk ndox rek lañuy naan waaw te bis biñ koy denc wane nañ cofeel ndax ñoom mala bàyyi ma day xam lépp xanaa du dara nag dañu am cofeel si Assane dëgg ne wàcce na xëy na ñu manifester def ay affaire loolu rek la wallaahi wër fépp wër nañ almeel yi wër foofu yëpp mhm. lépp yàlla la wallaahi. Mhm. jërëjëf ji ngi lay ñaanal yàlla sa doom ji dëddoo la ak jàmm yàlla na dee di noflaayam di ñaanal tam Alioune sa doom mhm. yàlla gën koo dëgëral ndax taxaw na rakkam ci lu ma fekkee maa ngi medul mii ndax ñoo yenn ko rek hôpital ba waaye fépp fu war dugg rek ngir lijjanti rakkam ji rek lijjanti na ko dooleem bariwul nag ñu ngi ñaan ba lay déwén yàlla nag suñu borom bett ay xéewal yàlla bett kook ay xéewal nit ku gore ku gëm yàlla la yëfee metti lépp gisuma ko mu mu xoqatal mbaa mu ñox ñoxi mu ngi ànd ngëmam di gëm ni yàlla ko joxoon Assane moo ko jëlaat ban message ngay lancé ci autorité yi ak tunnel bi nga xam ne insécurité bi fa parce que lépp mooy indi coow li nag. waaw insécurité am na tunnel bi noor la bokka Amar Maane moo yor mairie noor ñun suñu dëkk bi nga xamante ne mooy ouest dafa leer nañ bu guddee bu pëstara waddee sax man nga ko for ndax Aliou Fall maar da ko defar ñun dañuy génn guddi doxantu ba géej pëstara sax boo ko réeree da nga for bu la yàlla dénkee te jaam bu nekk li la yàlla dénk soo yeewoo bis pénc dina la ko laaj danga nga si rafetal jëmi si nit ñi tineel boobu lu mu si mën a def mu gën gaaw yàlla foofu la tuddoon ne Assane fi lay yem bu li si laneen laa amaat na ko jéem a taal ay rampe te ñu xoolaat tineelu tëngéej bi xool niñ ko defaree daal tineel boobu dans les normes sax dañ ko doon tëj defaraat ka tineel ba problème ya sa am ya sa làqu moo bari tineel bi bu ngeen fa demoon ba jël ko mu bindoo kenn xamul nan na oto bi day ba daw ba yàgg mel ni ko yëg si étage ba yàgg mu tourné def virage yi bari nag daal tineel bi daal insécurité na war nañ si jog amul lumière xóot na bu tawee day taaj oto du mën a jàll da ngay xaar ba mu tëgg sëbét nga door a daw waaw ñu di si oo Macky Sall comme moom mooy président Sénégal moo yor yëpp tineel boobu nag ko gëstuwaat bu bari ndax yàlla def ko dénk ay doomu aadama njaay muy senegal te jullit bu nekk lu la yàlla dénk bis pinc dina la ko si laaj ñi su war a loruwaat lay xelaat ma ko yàlla mais foofu lu mënul ñàkk loolu foofu dañ ko war a tëj ñu ñu defar ko dafa am insécurité baaxul bu tawee kenn du dem amul làmp ni mu bindoo kenn xamul lan la yàlla rek moo si am mais lu ne mën na fa am wallaahi. kon foofu la ñuy wàccee sunu kàddu di amaan mbégte rek di leen ñaanal jàmm di wax ne tey ñi ngi woon fii ci jokkul kaw seet si sunu yaay sunu xarit muy yaayu Assane di yaayu Papa Yada numéro 2 ñu ñaanat encore une fois rek yàlla na dee di nof laayam yàlla na xippi àjjana waaw Papa Yada numéro nag at yim dund bariwul ndax boo xoolee sept combats am sept victoire waaye nit tàbbi na ci ab dëkk dund fa juróom-ñaar fukki at génn àdduna te amoo li Papa Yada am yàlla na ko cat seexlu yàlla na dee di nof ndax nit ñi kenn moom leen ku ñëw kuroog ci armée lu jokkul kaw yi di nga xam ne Papa Yade nit la woon ci biir ni ñi fa mu jëm yàlla na ko fi mu jógee waaye gestu leen suñu wéjur wi ak doom ji fi Assane Ba yi ak soxnaam te xam ne kuy liggéeyal yàlla liggéeyal yàlla baa ngi nii yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf.